asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi jàkkaarloo ak ñun ci làmp Fall e, te muy bokk ci jumtukaay yi nga xam ne day liggéey sëriñ tubaa Cheikhul Khadim ak maam Cheikh Ibrahima Fall tey noo ngi fii ci Thiès daayira Maraxib daayira bi nga xam ne moo nekk fii ci kër Baye Ousmane Gueye Xasida te ñëpp miin ko muy koo xam ne liggéeyal sëriñ tubaa rek. mooy yitteem eh, ci xasida yi eh, di ñaan suñu borom doola ko fay yàggal bu baax a baax te wéral ko ba kàttanal ko ba lépp lu mu yéenee liggéey ci Serigne Touba suñu borom jàppale ko ba lépp mu def ko te ànd kook sagoom ba naal yëpp mu yeggale ko ba naal yeneen i naal te ñu ànd kook moom. di siyaar baax mbooleem waa daayira bi kuréel gi ñu fekk yëpp ñuy durus xasida di ñaan ci barkeb xasida yi suñu borom defaral ñu sunu tey ak sunu ëllëg nu fas yéene nag tey. Eh, maanaam sàkku ci ay kàddu yu jëm ci soññee ndax eh, soññee moom naka jekk ci yoon wi eh, ku ne xam na ne am murit day bëgg ko soññ rawatina koo xam ne fekk woon na lenn ci démb te man la caa dimbali ngir nu xam ñun ñii di ay ndaw fu ñuy teg sunu tànk ba lii xew ci yàqu-yàqu jamono ak gàllankoor ñu mën cee mucc loolu moo taxoon tey ñu ñëw ngir fas ne sàkku ci moom ay kàddu yu soññee Baye Ousmane asalaamaaleykum alif kitaab wa rahmatullah te maam tëdd yàlla joon di séddoo baax ak ceebra boo ne ceebra sax ni man la ci man ndax sa samay waajur ñi yaakaar sëy bi la joor la kër Ba la ba tey boo dee ci fa fa ñuy denc ñoo denn ñoom ñaar soo weesoo xamu sëy bi la joor te sëy bi la kay dugg eh, nag lu fex fii eh, waxeet na ko ba jàll maañ waxaat ko ba jàll ci ñii toog ñoom léeg-léeg ma dégg wa tagwaay lool te mu wóor ma ne booba kooku ma waajurum judduwul léegi nan xam ki li am lan la boo nee naan xam ne lan la nag naan ñooy ànd ak sëriñ bi rek laa jublu ndax ñun fii sax ba nga bu nga ma bind fi ni sëriñ bi bi rek kay sëriñ mm-hmm. ma doon di rogoy nooy yi réew mii boo dul jaamu tubaab bi tey sëñ tax gannaaw sëñ bi amal na nag xam ne jafe na te noonu am na maqaam madraja ne na nga kii moo ku dul sëñ Tuubaa koo fi ku sëñ Tuubaa nu ko may lu tax sëñ bi am naa am naa document yoo xam ne Ba ca ca ca université moo ko def waaye dama koy topp ba dem ci jeewal jeewal ji maam ci kumba ma ma takk dal jóge Mbakke Bari xaw ma fu tey mujj a war a ko lan ma ko yeggalee nar ada du saxaar mbaa dañ ko boot mbaa lu mu doon boot na nar ma dem ba jeewal ñu ne ma fii bu fi xëyee kokki kan maayum seen bët su màkkee te matal ma jox ko fal fanaani te sooba te boo xëyee la ñëw jël saxaar fa la mu joxe force mu ne waa bu xaw ñu ma ah day riwul kër ma suuf suuf day riwul kër ma tey mayte wadde wadde def ñaara kay day dul kër kër am na ku dee ci ngir mu jàllaloo ci yonte bi fale daay may may ko topp rek moo di ay ma béy de waaw moo du imaamu raatib ba ku ñëw moo ngi moo yegg kër góornóor moo di ama béy ñoo ko mën ñëw sticker I'm a Christian. Hotel sen mi ko do ngay ni nangi fi rek sabro de juga def ko mm-hmm. ginnaaw buñ jëlee te baar mu ñëw ku ku mosaan di wóotam ci juróom-ñett fukki yi fa ya fa nekk ak ñett seen toog ñeente deen moom mooy jiitu ki ñuy woo topp ca maamu nam topp ca bi bu ne ba di bëgg a dem sëñ mbubum mu geesu maa ceernu ko dellu ginnaaw mu dellu sëñ bi kenn jiitu ko ba ma ko ah maa ngi xamaguma ko woon mu dem ba mu dee ba dugg romb ñi saal bi nii tàng day joor ci biir ci biir biiru gouverneur tàng càmm ñëwagul moo wax ni ko nii war na waxtu bi jot na teg ko doon déedéet lislaam ma ko lislaam li yonent fi yoroon moo ko di fii laa yem te yaa koy remplacé foofa la li rek génne ci ci Mohamed ñëw ci loxo mooy ndono la mu dugg daal daal maam seetlu sat la mu ñëw maaroo si biir bi góor noo jug taxaw korosé loxoom noonu lay ko bindee taw di xool rek mu def ñaata kay yi dundal ba léegi moo ne ñaata kay bi nga dundal ndax am na juma am na jàkka am na yiliman alim jee fa wuba ah waaye ñaata yi dundal ba léegi de waaye yewaan fu mu ne boo yëggalee ñaata kay mu gees ma anteel ni ko tawtal kan mooy yittewoo ci fere yi man loolu lay jëmindi ñii ko ñaay wo ànd ba benn bu ñëw nangam duute xaw nangam moo tax ma de wax lu góor noor ne ko loolu léeg kenn mu géete woo để lại chăn một cái chủ còn nó đúng ông ông lui lại man mà có ra lại lại lên muốn đáp được cái ngâm chứ gì so với cái món thấy nữ một cái tết của một người nhà một cái bên ô để thế so anh nói ra bắt làm bắt ta rồi thế mình có cái bên cái này cái cái đi cái cái này ki tax nu jëkk nekkee man nangu nga bañ di nga ko xam ah noona dee taxit ah noo ngi koy tuub si ñu ko sañoo ak jigéen mat a bàyyi xel man daal ca mbindee ma dana dana kii soxnaa ma kii dee secrétaire mooy jigéen la waaye kooka ko ne kii boo ko enquêté ci biir mbooloo mi de sotti faale bi lu xoolee bi mu dugg ci isna ko bi mu dugg bi aroote ndox ci bërëb bi teggul kenn yëgutaan noo ngi fi ba jilu jilem xam de sax fu tere wala def ko tere kon da nga koy ubbi neen ak nag foo jàkkaarloog bi da booru ndar te nay ko bindee te ab góor na jox ndigal ñëw ko foofa ak benn chaise benn table keke def jiir boobee daa jàpp kenn jox ko génn gone góor ku bokk ci ñoom boobee jox ko keneen ni ko boo demee lu sëñ bi wax bind ko lu góor noonu wax nga bind ko fii ngóor si xool yow xam dafa tey buy bindu fenn te tam bi ci bindu fenn ma ko am moom luy numéro ndax fii daa jum fii moom lay mu ne quatre posé quatre ci siiw Ừ. mình mình có có âm bên trong Kelakativo. Mune am fui bindra mune kam na kau da bok jenji kawo da mujenyo mune vini ora bindikat. Yad binde mara bindikat. Bende bagoro fombero. Hay mudad lai da thij bi lại lai. Lai machen ko. nem ko waxam loolu li waxal fee mu ne ko ah dama li biir di indi fii yow ni ko dool naa ci ñaar loolu tey bi ko moom tey bi ko dool naa ci ñaar mooy quatre tam dool ci ñaar góor na mu ne ko li ko xam mu ne ko yaa ngi xam waaye naa leer day la joor ci ànd bi lii ngay jox amul maa ngi jox amul ndam saa moo tudd amul ndam ma eh, eh, eh, ko comme yéen ma yow nag nga ne lii mu ne ko lii ma laaf du manqué ne nga ñeent naa doon naa ñenn yenn ñeent trois fois quatre douze mooy juddoon république amaat mu ne mu ne ko nag quatre boobu sama quatre boobu bi day feeñ ci ci at mi muy weer mu feeñ ca fan ya kon mooy weer mu weer mooy awril fan ne mooy 4 avril 4 sëñ muy diwus mooy juddu yonent bi ne ki gëm at ma ne di ko barkeel di ko barkeel ci Mohamed lu tata kon bu na amee indépendance loolu laa tax loolu moom ma indépendance dara lu ñu la a wax daan soxat ba dépend maa ngi ci mënoo addamoo lu sëñ Tuubaa mënoo jaayoo lu sëñ Tuubaa du ma am dara lu may def lu sëñ Tuubaa waaye nag bari na yoo xam ne dañoo dugg ci may sëñ Tuubaa te war na xam nu mu toll tey ba dara loo doonul dara kenn dul ci tudd am déet a ah, déet nante waaw noonu la am déet. loo doon dara. kenn du la ci tudd. kenn du ci tudd. bu nemoon tey nimsaat. ñi mm-hmm. fa tëdd ñëpp ay tëdd kii na nga fa tëdd. ñëpp ay tànneef. waan si di baax ba ni ko yàlla. déggum te diw ba ni ko yàlla. man déggum bu ñu jógee fa mu déggoo seen nefere ba ñuy dem réew mi te mboolem tarixa yëpp laa wax na fu dul Tuuba kenn kuy fi ñu di yow yàlla jàmm jëkki mucc xawma ko am déet kon bu ne seen Tuuba ka wax ne ci biir mbooloo mi ànd mbooloo mu doy di seer ni ñëpp ma moo ko tëntuwa tëntuwa too di dégg ma ko waxati ko waxati ko e, e, e, tey bu ngeen ne xajugal man ko sutural di de ah tey jii de ko mbooloo xawma ko ko muy tey mbéytaar bañ ko waa kër tey mbéytaar yi itam nag dem waa kër Sëñ Tuubaa ñëpp sutura lañ may taar tay bañ ke gor maa nga fa waaye déggoon te mu taar tun may taar ah to abel bañ ke gor wóor na yàlla ma ni maa nga fa to abel kon waaye déggoon te may taar de Cheikh Abdoulaye Fito Niébla Khali dégg ko mu woo Mbaye Sarr Cheikh Sarr booy dem ba xel koom dégg ko mu tudd Mbaye Sarr xam nga loo ko sababa ci li may gis ñëwatoo ko seen ba silo mi nekkoon eh, man ca jo jàkkee njaareem moom daa cee aw kayit woowu mu woon mnawakitin cuaca yang mai tabu din kulegi lo dole ken ko to ko nagi bisma te to lo te to ani jap le ko ko jap mu to fu de ti bing mai ta jal tu da ti ba ka so de ko ja ko de ta ma de ba be ti mu jap su ye me ma yo yo ma te ba mais coupe boobu tel que commandant tel que mu am bu commandant tel que porte coupelite nii daa bu tooxal njëriñ su bakkan su googee andi ñetti bagay xaalis mu dee suti kër te ne ko da ngay doo yàlla wax ko man nañu ah ci guddi gi mu bëtte bi te macar xëy dongale ngee moon loolee tëgg fecc fa ñaq penc bi dina ñëpp nga ci àll bi ñi ni yiwu tool ya te bigi ni ko ni ko jàqloo sa xaal moom yéen loolu de sa xaal moom yéen loolu de Maytar xanaa yëgoo bindi fi dee bëri wu ñu fi dee mais ah dee joo gën de mais waaw xew sa amul waa tey tey juróom-ñaar sama yi dee di juróom-ñaar doom yi di xew li kese ñi xëy dem yàlla ngeen fi rek di saa yi mu ne ko loolu ah, loolu la mën naa dégg ko arab de.

laa ah, tebbu te dootuma ko manqué te te te doon na may dugg ji bi ne képp néew waaye mu génn ko ah may saar te góor ni ñëpp te doo góobi ngóot ay ko xam ngóot ngóot waaw mooy tool waxee den may bay fal-fal wax ngay ñëw naan ko muy muy kuk loolu mooy ngóot waaw may taa di nga góob ni ñëpp te doo góob yi ngóot ah yàqu waa de. Ah. Ah, xanaa ba tuuti rek ci lu ñu mën a leeral ci jëmm ndax dañ mag ñi dañu daan wax ne ku mel ne sëñ Thierno Diouf sax déggoon naa mu ko daan wax ñu ne jëmmi sëriñ bi moom boo ko mosaan a gis jëmm ji maanaam comme ñuy wax naan dañu jàkkaarloog sëñ bi di wax am na ci dañ daan wax ne sëñ bi jàkkaarloog moom xool ko sa ñaari bët sax yombul. Hmm. Hmm. waaw waaw ah. ah. laa ma di ma leen bi ma sax bay ak sënim mun laaj ko nag damay dem ca àll ba gore ya mm-hmm. wa deme jàng alxuraan sembik mm-hmm. alxuraan daatu ko jiitu sembik mm-hmm. ni ko alxuraan daatu ko jiitu nee na fi ma toog at yaatu sëñ baa ngi toog yéen bu set bi yaa bi bu set lool saa mbay tey raam ut ma toog di xool waaye fekk koo daa mel ni man su fukki bëri ko daa mu jëm loo sefa nuur ci xool mi ko waaye bu doon mel ni bëri képp rek jar na ko wala yu tabi déedéet wuma boobu de de wala yu tabi wax fii li man yaqraw saani sax bi kulli sawan yow yàlla ke sama téere bii ko yóotu ko jàngat jokkoo xam na war a mel parce que ngir yaroon kun jaw mais ku mu àdduna jeex kooku moom bàkkaar waaw waaye wata bi wax fe li man yàqaraw taan koo jàng xawtaan sabbe